jëre ngeen jëf mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihoon ci li nga xam ni euh, tege na ci kaw mboolem kuy jullit rawatina doomu Sénégal muy wàcc liggéeyu Sidi Lamine Niass ñu xam ko muy nitu diine waaye di nitu média tamit ñu bokk ak moom euh, ëttu taskat tasukaayu xabaar yi waaye tamit mu bokk ci kilifa yi nga xam ni dañu nekk ci ëttu këru diine yi bokk ci euh, njabootu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ngànk diine ji ba tax na ñu mm, feggoo ak kenn koo xam ne tamit ci wàllu boobu la bokk di islamologue ñu koy wax Serigne Saliou Niang Serigne Saliou Niang di borom xam-xam euh, nekk animateur euh, ci émission ay ne ma ngi koy amal ci diwaan bi nga xam ne moo di diwaanu Touba Mbacké ñu xam ko ci ginnaaw bu ñu la ziyaare Serigne Saliou mën naa la wax sax àllaaji waaye tamit di la jaale li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk rawatina nag yéen ñi nga xam ne seen euh, euh, taxawaay dafa nekk ci wàllu euh, programme diine ci li nga xam ne mooy wàcc liggéeyu Sidi Lamine ñas xam naa di la jox rek nga andil ñu ci ay seede yoo xam ne nii ak li nga xam ne jotoon nga ko jàpp ci Sidi Lamine Niass sëñ bi dalal jàmm. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy déglu nu ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax baax te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. di yëkkati kàddu yoo xamante ni mi ngi doon kàdduy njaal ci sunu mbokk jullit moo xamante ni dafa wàcc liggéey di sunu waajur di sunu kilifa di sëriñ Sidi Lamine Niass mi ngi ñaan ni ko sëñ Fallou waxe yàlla jéggal ko ay bàkkaaram te yàlla ay rafet rafetan sunu borom fulal ko ko te yàlla yóbbu ko ci àjjana kawe mu di si te yàlla def àjjana muy am noflaayam muy tëraayam boo xamante ni bu jekk la mu noppalu fa Euh, ñu koy jaale réew mi ñëpp nag di ko jaale kilifa diine yëpp rawatina sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké ak mboolem kilifa diine yëg ak autorité yi ak sunu njiitu réew ñu ngi ko koy jaale baax muy président Macky sàll waaw ñu ngi wax de sëriñ Sidi Lamine de yàlla dogal nañu bëggoon ko ngir ñaara bëggoon nañ ko ngir li mu nekk nitu diine koo xamante ni ku nekk xam na ne waajuram mu jigéen mi ngi bàyyi ko ci sërif yi nga xam ne ñoo nekkoon Mauritanie mu doon koo xamante ni mën nañ koo askanale ci yonante bi ci askan waaye mu tànnaat tamit diine yonante bi nekkoon ci kon loolu tawféex la ñu dikk nag di yëkkati kàddu yu nu xam ci moom ku mel ne sëñ Sidi Lamine Niass liñ ci xam mooy ku jàmbaare woon ku bëggoon am réewam ku doonoon koo xamante ni ku mënoon a yaatal amoon relation ci mbooleem turux yi waaye ci mboolem li xew ci àdduna bi mu amoon ci gis-gis boo xamante ni gis-gis bu rafet lay doon doon koo xamante ni wax naa ne li mu liggéeyal réew mi nit nekk na président ba jóge fi ba dem te liggéeyaloo réew mi lu tol noonu yaakaar naa bu dee ci wàllu presse bi ñuy waxe tamit presse yi nu fi xam presse bu agsee fii ci Sénégal am néew bi sàmm démocratie bi am ci réew mi loolu grâce Sidi Lamine Euh, gisoon na ne nag moom àndoon ak peuple bi moo ko gënal fuuf ànd ak nguur amul genn nguur goo xamante ni sii di masoon naa tafu ci sa wet ngir di la jàppale xanaa jàppale bi mu lay jàppale mooy nekk ci sa wet di la wax dëgg soo juumee mu ne la juum nga soo jàddee mu ne la jàdd nga loolu rek la nekkoon waaye peuple bi la nekkaloon di xeexaloog ñoom seeni àq ak seen i droit loolu tax na sax lu bare bare bare li presse di am wala ñu jagoo ko ñu xañoon ko ko ba barki dembo njaay bo seetaanee rek télévision yi yépp ñi ngi doon def direct ndajam président bi xewon waaye mom mi dañ ko boycotté ben gisunu ko ci té liko ko waral moy ni mu tëdde won ñu bare bari amon gisin won ko gis yaakaar naa ne yoy yépp gatch ngalam ligéel na réewum ba tay ma ngay dem di noppalu ji doonon ko xamanteni dëkk bi di Touba bokku na ci ku fi gis rek man nan la jappal aw yiw man ne ku bax nga amul dara lu fi xew te gisoo fi sidi gisoo fi peresam ba bi sëñ sidi muxtar nelawee ci ñi téla ñew ci la bok ñew jaalé si def njaalam bi nu fi yëkkati ay kàddu yo xamanteni sax ay kàddu yu gone yu ndaw yo xamanteni ni kenn xamut fu ñu jóge yëkkati woon moo taxaw dal ci seen kaw ne nangam ak nangam wax Allah lo xamanteni na rek né day défendre bopam wala nangam doonon jambar jambar jo xamanteni dafa am xel boole kook xam-xam amoon aw fit boole kook doylu woon doonoon ku gorey tamit ku doylu yaakaar naa ne bu dee ci wàllu presse rek émission bi ñu fi njëkk a xam nga xam ne man nan buñ doon bind ci taarixu histoire émission yi fi gën a réussir ci Sénégal ci addu Sénégal mooy diineeg jamonoom bi yaakaar naa diineeg jamonoom bi saafar na lu bare bari ci réew mi ci émission boobu rek la na ci problème defar na ci ay jikko jàngale na ci jàngale moo xamante ni yaakaar naa bu nekkoon ca daara ja toog di jàngale tamit du ko man waaye benn bi may mujje mooy li mu defoon mu amoon xaalisam ñëpp am seen xaalis di ko doon ci compte banque yi di ko coppati bar ndànk di ko dunde waaye loola mu ne dama koy def ci sama réew wut ay emploi ñuy liggéey ku nekk xam na ne presse amut xaalis amut xaalis waaye wut ci yàlla wut ci yàlla nag dafa jafe ndax ay galgal yu bari waaye sii di emploi ay nit di leen jox ñi ci ëpp ñëpp tey boo xooloon presse Sénégal bu nu génne woon ñi mas jaar ci loxol Sidi ne leen yéen bu leen waxati kon yaakaar naa ne presse dina deltu ginnaaw bu baax kàngam yi nga fi dégg ñëpp ci moom lan jaar boole ko mu ji leen jëju jëf joo xamante nii nag bisub tey la bis bi moo taxoon mu leen koy jë ñoom ñoo ñëpp ku ci nekk bare na ñum ci jàpp mat leen ba yóbbu leen wan leen rasulullah yóbbu leen ci kaaba ga amul kenn te dañ daan seet nit ñun nit ñi jàpp ne kenn waru leen yóbbu wala waruñu leen kii mu favoriser leen yóbbu leen màkka defal leen loolu nag dafa mel ni tey jii la doon xaar moo tax ñu ngi yëkkati kàddu yi jaal di ko jaale ñëpp di wax ne kii mooy doomi réewam bu ñuy wax kan mooy sëddu doomi réewam mooy sëñ Sidi Lamine mooy doomi réewam bu nuy wax ku liggéeyal réewam moom mi mooy ki liggéeyoon réewam bu ñuy wax ki liggéeyoon lislaam moom mooy ki ko liggéeyaloon bari na dëgg yoo xamante ni kenn kenn kenn daanaka ñemewu ko woon a wax wala mu jaar ci waaye Sidi bu waxtoo jotee bakkanam la jël teg ko nële ngir wax dëgg gi loolu nag yaakaar naa ne ndax ku nekk xam na ne buur ak am na ñoo xamante ni daanaka wax leen dëgg xaru rek lañ koy jàppee surtout ci jamono bi waaye Sidi danaan taxaw wax ko loolu nag ñun ñëpp ñu ngi koy jooy ndax ku mel nii koo xamante ni bu problème amatee mu mën a taxaw di wax dëgg ndax bu jël réew mi demee ba àgg ci situation boo xamante ni bu jaxasoo bu àgg si nii ndax dinañ amati ku mën a yëkkati kàddoom nii di ko yëkkati mu jóg loolu lu jara jooy la ñëpp a ngi koy jooy ñu ngi koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla tàbbal àjjana te yàlla jéggal ko te yàlla dolli xéewal te këram gii mu fi bàyyi muy kër gum doon liggéeyal lislaam di ci liggéeyal askan yàlla na ko suñu borom fulal te yàlla na ko suñu borom téyal boppam ba lam ci yéene woon lépp suñu borom defal ko ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa suñu xol tooy na ndax sii di wax dëgg yàlla jàppe nañ ko ñaar kilifa diine waaye jàppe woon nañ ko en tant que daanaka jàppe woon nañ ko waajur ndax taxawaay bu mel noonu la doon taxaw ndax ku nekk xam na ne heure boo bëggee dégg loo xamante ni da koy dégg te man cee jariñu wala mu doon loo xamante ni dëgg la koo xam ne ñi dañ koy woy lool da naa naa kar teleem bi wala naa kar rajoom bi mu amoon liberté yi tamit moom bu dëgg dalee ci kawam mu nangu ko te loolu mooy nit dëgg sëñ Fallou sëñ laa daana wax ne dëgg fu ma mën a jóge rek baax na fu ma mën a jóge waaye Sidi fu ko dëgg ma sa mën a jóge rek nangu na ko ñu ngi sant ñëpp di ko ñaanal di ko jaale mboolem umma islam bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf Serigne wu ña ci euh, seede yooyu nga xam ne yëkkati nga ko ci turu euh, monde islamique wala bokk monde médiatique wala bokk média local bi nga xam ne tamit dañuy yëngu ci wàllu diine tubaarkalla macha allah muy kàddu yoo xam ne daanaka yóbbaale na kàddu képp koo xam ne rek yaa ngi ci ëttu tasukaayu xabaar fii ci diwaan bi euh, tamit ñu man ko cee dugal rek di ko jaaral comme ni nga ko waxee rek mboolem xalif sénéro yi rawate na nag euh, waa na ñaseen gi nga xam ne foofu la waajuram mbokkoon waaye dina bàyyi ak mboolem rek xalif sénéraux yi waaye tamit monde médiatique bi yépp tamit nga xam ne ñàkk nañu ku mag a mag a mag ci wàllu média ci wàllu xam-xam ci wàllu lépp loo xam ne nii rek xeex la ngir euh, liberté d'expression